émission moo fi xew lépp lu jëm ci wàllum politique yow lu jëm moom ci wàllum sport lu soxal moom ndamu réew déglu leen déglu leenoo oh. Assalamualaikum rajo xalimaay ak yi ma ngi len di nuyu bu baax di len sante di len delu di leen baaluwaat ak Seydina Sek mo fasiyene yéene ak yeen waxtaan comme ni ñu faral di defee sen émission Pentium diaspora numéro 14 ñëwaat ak yéen ci waxtaan benn bu ñu sulli woon si numéro 13 bi war si indiwaat ay leeral ak ay xóotal ci rek coow li nga xamante ni site d' information générale bii di dakar actu point com moom moo ko fi soulevé woon boobu ba tey ñuy xaar suñu quotidien national yi exploité ko nu mu waree mais malheureusement euh, yaakaar dafa tasati ndax gisuñu ko dafuñu liggéey bu ci war ndax jël article bind ko indi ay preuve teg muy lu soxal transaction de 12 milliards yoo xamante ni sénégalais yi ñu ngi xaar en espace de moins de 6 mois naka lañ ko a mën compte MDL di Mineral Deposit Limited Sénégal bi nga xamante exploité euh, zircon transférer ko compte TSE pour Cheikh Amar kër waxon na 2007 et 2008 plus de 8 milliards 9 milliards transfert transferts. 5 milliards si le 20 septembre 2007 le même jour am a benen chèque pour 2 milliards 500 7 milliards 500 ci Trois jours après am benen chèque 1 milliard 771 millions 440 000 francs CFA ay miri yu doy waar yoo xamante ni askan wi soxla nañ ci gindi wala ku leen ci gindi le 19 février 2008 déglu leen baax lu ma leen wax le 19 février 2008 mu jotaat beneen chèque boo xamante ne mi ngi ci 664 millions 605 mille francs CFA mu toll lépp bokk totalisé dina la yóbbu ci 12 milliards 436 millions francs CFA ci li nga xamante ni jóge na ci MDL dem ci compte TSE. ndax chèque boobu waa BICIS ñoom ñoo ko jox waa CREI.

mënuñoo wax ni kii mooy borom àll bi wala kii moo nekkoon baadoola bi noonu la ñu war a mel si kanamu yoon te ñuy fàttaliku di leen ko fàttalil encore une fois lu fi waay atte ci kaw suuf tamit yow mi xiyam dee nañ ñoo ko attewaat nañu teg ci mbir yi yoon nañu bàyyi borom alal yi jël di leen di leen favoriser ña kenn du leen laal boo bindee si ñoom wala nga wax si ñoom ñu lay woo di la saaga di la menacer de mort suñu autorité toog di ko seetaan lu nu ñoom ñoo toog di ko seetaan. na leen delloo ci xel yi te jiital dëgg bañ la jël alal di moom dëgg wara doole di moom dëgg mukk yàgg-yàgg nag dëggay mujj léegi nag loolu lépp la ñuy tere ku ko wax mu nekk ay njuuj njaaj yi nga xamante ni ñi ngi xew ci biir Sénégal te kenn du ko wax mu mel ni tey Sénégal dañoo nekk dëkk bi nga xamante ni doole ak alal moo fa bëgg a moom dëgg te duñu ko nangu kenn du ko nangu naka lañ leen mën a tuumaalee lu mel noonu ak ay dossier teg ko au lieu que nga indi li nga xamante ni mooy ay justification nañoo taxaw ne kat lii amul wala nii la demee wala nii la demee gindee askan wi ci lu nu mel waaye déedéet da ngay ay nit ñu taxaw di saaga ndey ñooñu a la place fi ngeen waroon a indi leen lumière ngeen jël ay nit ñu leen ñu ñuy taxaw di saaga ndey nit ñi saa su nekk ngeen teg ko fan ngeen teg fan loolu fan ngeen ko teg ñuy saagawaatee xam nañu Sénégal fii kenn gënu fee réew kenn kenn dàq fee saaga kenn dafa fekk yar yi bokkul yar yee bokkul man mënuma comprendre tey jii mënuma comprendre tey ñi nga xam na nga ne ñëpp tey say xarit lañu ñooñu la cible di leen saaga su est-ce que tey jii laaj mënut a jub est-ce que nekkul tey euh, yow euh, Cheikh Amar yow yaa nekk ci ginnaaw ko avez laaj dafay maa di dafay daal di jub xel daal di tey Youssou Ndour GFM actionnaire nga fa président Macky Sall les membres du gouvernement Pape Diouf fu mu xëyee di la dit woy su Jackson vous Sénégal ñi ngi commencé ñàkk suñuy valeur ñi ngi commencé ñàkk dignité bu ñu amoon sutura kersa ba tassara lay faral di wax naan suñu maam yi nga xam ñoo ñuy jitu suñu maam yu baax yi ñaan si sénégal ku leen tapp tappoon tay fu ñu tëdd jug fa dinañu kitaabu ni du sénégal bi lañ fi bàyyi woon sénégal boo xamante ni kenn respecté tut kenn kenn nawlu tut kenn nit ñaa dëkk di saagante di liggéeyante di yéenante lu bon seen morom ku la ëpp doole won la ko ku la ëpp relation won la yërmande daal di gàdday malheureusement tey loolu loolu mooy Sénégal tey jamono ji loolu mooy Sénégal tey procureur nag procureur Serigne Bassirou gay bu ñu demee tey ba réew mi toll ci nit ñi di fajal sen bopp sen mer nit ñi di lijjanti seen bopp seen dossier boobu kat nga war a xam ni ëllëg lu tàkk ci réew mi sa loxo du ci set te yéen yéenee responsable yi ndax neexul kat neexul nit ku nekk nit nga nit ku nekk nit nga deretu gore daw seen yaram yàpp ak yax kase lañu munoo jékki-jékki nit xëy saa su ne suba ba ngoon di leen saaga ndey nga taxaw di ko seetaan ñu ci war a jug juguñu ci ñu ci war a wax waxuñu ci ëllëg si biir lu ci xew yéen yéenee responsable yi yéen yéenee responsable yi baa may dégg ñu naan woy diw dañoo war a assurer sa sécurité bàyyi saaga mooy sa sécurité bàyyi saaga mooy sa sécurité bu leen ko bëggee loolu ngeen koy wax nit mënoo taxaw ñu saa su ne ngay xëy ñu lay saaga ndey nga toog di ko seetaan man Pape Diouf du ma ne rafetlu naa lu mu def parce que homme public la am na foo xamante ne dimension internationale la am am na foo xamante ne d'accord ma ci te je pense que ni daf na ko lettre bindu ko wax ko mais tamit benn côté dañ koy comprendre ci ci ci ci réaction boobu doom fu mu toll ci ndey ñëpp xam nañ ko neexul ñuy xëy saa su ne di la saagay ndey nga toog di ko seetaan neexul nañ waxante dëgg nañ bàyyi naafeq bi bàyyi hypocrisie bi tey waxante dëgg bu dëgg jotee dañ koy wax bu dëgg jotee dañ koy wax. kenn ku si nekk na nga ko xool ci sa bopp jarul ñuy jéem a xool naan diw ak diw ki ma yaawal nañ xool kenn ku nekk na nga ko xool ci sa bopp ndax loolu mooy dëgg rawatina yaay gu la ëmb juróom-ñeenti weer di la nàmpal teg la ci àdduna teg la ci yoon ba nga màgg te doon li nga doon ñu xëy di ko saaga loolu du neex kenn moo tax damay interpeller encore une fois le procureur doit prendre ses responsabilités sénégal lii bu ñu ko seetaanee si tàkk la jëm te ñaanuñu ko yàlla ci tàkk la jëm internet boo duggee youtube koo gis léegi vidéo yoo gis vidéo yoo gis cinquante vidéo yoo gis trente yëpp ay saaga ak ay wax yu bon la yëpp nag rawatina jigéen ñi jigéen nga xamante ne référence la musa nekk looy def sax ba ñaan jigéen suturaal ko yàlla fonk leen jël saar tuddee leen ko muuroo leen seen cër nax rek fonkum leen fonk te ñoo ñëw fi nekk ci internet bi ñoom ñëw jiite saaga yi tey mu nekk yoo xamante dañ ko war a ñaaw dañ ko war a xeex bu dee bëgg nañ Sénégal bu ñuy bi nga xam moom la ñuy wax tànk nag du ñu waxante dëgg du ñu dem fenn tant que lu ñu waxante dëgg du ñu dem fenn am na yoo xam ne nag dafa ñaaw ci askan bu ñu demee tey suñu voisin tey di ñu kaañoo bu ñu xëy di ubbi suñu sidi di ñu reetaan amatuñ dara loo xamante ne tey luy luy luy mën a yeete la moo fay nekk la presse tey scandale douze milliards yi waroon ngeen kaa war a mën a traiter autrement war a mën a gindi askan wi ñu xam lan moo xew exactement moo tax damay saluer courage bu doyen Mody Niang am grand maa ngi lay saluer bu baax di la encourager encore une fois sa contribution bi am na solo jàngat nañ ci lu bari parce que loolu mooy dëgg nit booy informer da ngay informer juste et vrai teg les faits les dates les chiffres mais tey am na amoon na tey ay quotidiens yoo xam ñoo gënoon a jekk ci traité lu nu mel waaye defuñu ko war ñu dem gëstu ko xam lu xew mais il préfère taxaw di wax troisième mandat wu euh, président de la république yow yow yow jotaguñu deux ngeen wax trois Macky Sall bu amee deuxième mandat moo ko war a liggéey te li mu def nii amagul doyagul kenn ndax sénégalais yi koo ci gis tey yaakaar gu tas mooy feeñ ci kanamam donc bala ngeen nan trois wax lijjanti leen deux bi ba pare xam naa dañ ne leen rek kaa leen jéem a jël li jéem a sonde askan wi que presse bi ay ay presse groupe de presse ay groupe de pression la ñu am chaque fois dama leen koy wax dañ leen yón ne leen dama leen ngeen sonde askan wi xool xool naka la ñuy accueillir troisième mandat bi mais du fi jàll moom président de la république moo leen gën a xam loolu du fi jàll lu gën a am solo mooy nañu lijjante suñu douze milliards yi nga xam ne ñoom ñooy jógee compte MDL jëm si compte TSE loolu la sénégalais yi bëgg xam loolu lañ bëgg ñu indi ñu si ay leeral mais pas di yónni ay nit ñuy taxaw di saaga nit ñi dafa war a jeex loolu dafa war a jeex dafa war a jeex maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di jéggul encore une fois bu ñu si waxee xol rek euh, daf fekk débat bee ko laajoon waaye ñu ngi ciy jéggulu ñëpp c'était pas l'intention de blesser qui que ce soit dañuy jégguluwaat bu baax a baax jërë ngeen jëf di leen sant jërë ngeen jëf wasalaam émission moo fi xew lépp lu jom ci wàllum